xool ko dafa sonn lool dañ ma wax ne bu ma ñëwee fii ci Makka dinaa am ku ma dimbali am nga ko Siham baay fan ngeen jëm mënuñu ko bàyyi nii rek faaw ñu dimbale ko. waa xar mi nag. bàyyil xel bu baax li alxuraan wax ci dimbalante ci am doo nekk nit ku baax mukk lu dul dangay jëf ay jëf yu baax di dimbali say jegeñaale jirim yi ak ñi néew doole bu ñu jëfewul ndigal yi ñoo yées ñi doon jiite màkka bu njëkkoon. xam nga si am màkk melul woon nii mu mel jamono jooju ay téeméeri téeméeri xërëm ñoo waroon kaaba gi dund fi nekkul woon lu yomb si ku ñàkk ba mel ni man. jërëjëf kilifa gi. eey jox ma lii. su ma la lebalee damay xaar si yow mooy nga fay ma. dimbali ma dama ko soxla sama jaboot ñaa ngi dee ak xiif. loolu daal sama yoon nekk si. hey jàpp ko. dal leen jàmm fiti màkka fu sori ngeen jóge yéen ñëpp dal jàmm. def leen lu leen yàlla yi danañ leen aar <laughs> la dinaa la jox lépp lu ma am dama la ngir ngay liggéey Sumayya waaye du ngir nga nekk fii di ñaan xamal ni ci jamonoy aj la nekk li ma bëgg mooy na yàlla yépp rafet yërëm leen ma jënd naa ko Bilal. bàyyi xel bu baax sa yaram mun nañ ko jënd waaye sa ruux yaa ko moom kenn mënu ko jënd. hey jugal si defaatal beneen yoon waaye xamal ne. boo ñàkkee sama jaam ngay doon oh. léegi maa la moom jugal te nga jóge fii xoolal ma ujaaj yi yépp ajug ren gi daal neex na lool sunu wërsëg mooy yàlla yëpp fii si màkk la ñu nekk. eh ajkat yi ren na yi ñu de dañuy fay ñaari yoon marchandise bi war a jar. dëgg la dañu war a mànkoo sax ñu yokk suñuy njëg. anam mbaax gi nekkoon ci sunuy maam ajkat yi dañ daan ñëw ngir siyaare si dëkk bu sell bi dañu daan boole sunu doole ngir jox leen lu ñu dunde waaye léegi nag. ñoom ñëpp xam nañ ne dañuy tund ci seen kaw. man mënu ma dégg li ngay wax yow Abu Talib. dalal yow Abu Jahlin Abu Talib mooy sunu kilifa. dëgg la man sax mooy sama mag waaye warul toog fii di ñu tuumaal ak di ñu xas. ujaaj yi dañu soxla ngir mën a matal seen aj dinañu jël fukk yoon li ñu war a jël moom dafa jàpp ne li mu ñu wax rek lañu war a def ndax njiiram ñoo yore kaaba gi. mbir yi nag dafa war a soppeeku bàyyil xel bu baax yow Abu Taalib ni ay soppite léeg-léeg du jur jàmm Abu Taalib xamul woon ne doomu rakkam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo war a soppi mbir yi bi mu amee ñeent fukki at daan na dem lu bari ci benn montagne bu nekk ci biti dëkk bi ngir jaamu ak weetal boroomam ñàkk a gi kilifa yi nekk màkk daan doxale daf ko daan metti lool jaam yi ni ñuy toroxale jigéen ñi kàrt gi rey gi nii rey xale yi jaamu gi ñuy jaamu ay yàlla yu ñu defaree ay bant ak ay xeer ba ñu jaamu yàlla mi nga xam ne ku wéet la ci nguuram te mooy yàlla yi Ibrahima Muusa ak Isa benn bis mu nekk ci xunt mi di jaamu ci saa si ak leer jolli si lépp li ko wër jibril moo ko feeñu mu wax ko jàngal muhammad tont mënuma jàng jibril wax ko ba muy ñetti yoon waaye tont bi yépp nekk benn jibril ne ko jàngal ci sa turu boroom sa boroom bi nga xam ne moo bind àdduna ak li ci biiram moo bind doomu aadama si lumbu deret jàngal sa boroom mooy ki tedd moo xamle ci xalima moo xamal doomu aadama lu mu xamul woon jibril dem muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak tiitaange gu tar mu génn xunt mi di daw bi mu wàccee montagne mi Jibril feeñu waat ko beneen yoon ne ko Muhammad yow yaay yónnente yàlla bi man maay Jibril fépp fu mu tourné kanamam muy gis Jibril mu koy wax Muhammad yow yaay yónnente yàlla bi man maay Jibril bi Jibril demee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu këram bi ma àggee këram mu tiit ba tey mu wax soxnaam Xadiija mu sàng ko mu nettali ko lépp li xew mu wax ni dafa ragal dafa ragal ni dafa jommi xëy na li mu gis seytaane la waaye soxnaam Xadiija dalal ko ni ko yow yàlla du la toroxal mukk ndax dëgg rekk ngay wax te dangay ngay taxawu ñu néew doole gannaaw loolu Xadiija yóbbu na ko ci mbokkam ma Warxat ibn Nawfal mu nekkoon boroom xam-xam bu mag ñu nettali ko lépp li xew sa boroom kër mooy yonent yàlla bi waa mag danañu ko tuumaal ni waxul dëgg danañu ko waxal yeneeni baat yu gën ñaaw te sax danañu ko génne ginnaaw loolu Khadija ànd ak boroom këram dellu sikki sàkkawul benn yoon ngir nekk ki koy njëkk a gëm ñu bari topp nañu ko ci loolu fan yi yëpp ay wax mi ngi am ci réunion yi Muhammad di amal bàyyi li ngay wax yow Abu Jahlin waaye am na lu mu jàngale am na lu mu jàngale xawma lan la waaye doomam Sayid ak rakam xal yi topp nañ ko ñooñu lenn rek lañ ci waa këram ak ay jaan waaye dañ ko war a tere lu tax ndax day jàngale loo xam ne ñun xamuñu ko déglul bu fekkee nit ñi dañu continuer di ko topp te li muy jàngale baaxul dinaa dal ci kawam ni ab tan waaye bul fàtte ne Muhammad la Abu Jahlin al amin mooy ku wóor ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na di woote ci ak làqatu lu man ñetti at ci jamono jooju si am si laa dugg ci diiney lislaam ndax wóor na ni kenn gisuñu. nañu dem diglu ji. bàyyi leen ñu dugg nit ñi gën nañoo bari tey. fan ngay dem yow bilaal jot damay dem diglu ji yonente yàlla bi amul lu dàq diglu jàngaleem lislaam si làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax baat yi gën a neex yi nga xam ne mësuñu ko dégg te mu bokk ci alxuraan daf ñuy jàngal yi yàllay màkke yi nekkul lu dul ay xeer benn yàlla rek moo am moo yàlla yàllay Ibrahima Moussa ak Isa dañoo war a sori lépp lu dul moom si yàlla ji mu ñuy tegtal amul wuute diggante góor ak jigéen ku am ak ku ñàkk jaam yi ay gor lañu ñépp a yam suñu boroom daf ñuy wax ne éey yéen nit ñi maa leen bind ci diggante góor ak jigéen ma def leen ay ngiir ak ay askan ngir ngeen xamante ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla jigéen ñi suñu borom moo leen bind dañ leen a war a jox cër bi ñu jox góor ñi suuf si suñu borom moo ñu ko xéewale dafa war ci ñun ñu sàmm ko ku nekk ci ñun dinañ la àtte ci say jëf ñu bari dugg nañ ci leenee lislaam si guddi gi ay baat yu sell lañ ñuy waxloo amul benn buur bu dul yàlla muhammad mooy yàlla amul benn buur bu dul yàlla muhammad yonente yàlla la amul benn buur bu dul yàlla te muhammad yonente yàlla la